asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi mbooleem koo xam ne fas nga yéene jóg wuy si sëriñ tubaa xaadim rasul ci wooteem bi nga xam ne moom la woote ngir àdduna bépp ànd sant la ko ci boromam subhaanahu wa taala te bis boobu war a nekk ajjuma le 24 août incha allah loolu nag 23 août incha allah loolu nag dëkk bi doon dëkk boo xam ne boroom dafay am lu fi bëgg am lum fi bañ. mu joxaat ndigal rakkam ji nga xam ne moo yore kàddoom di cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir boole ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci jumaa ji ak sàmmonteeg war may jumaa ji loolu nag la sëriñ Bas bëgg a laabirante ak mbooleem ñi nga xam ne. jóg nañ seen yitte jëpp jëm si Touba rawatina ci barab bu tedd bii di jumaa yi ji kon ñun ñëpp ñu maa déglu Cheikh Mouhamadul Bachir bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiallahu an baqiyati salaf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 wakun bi xifsihi kafilan daamina wa tusbitan fihi jamaatan tuqim alsalawat alxamsa daban ya xakim wajal binaaiya binaa xilmi wa sunnatin wa amalin wa sun bi sunnatin wa xilmi wajal binaaiya binaa al ihtida wa takfi anni kayda kulli si ihtida bari na fu ko wax kon jumaa ji da ko ñoroon loolu kon nag gis nañ fan yii nag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 ngir xam ne ab bi la koy jariñ mooy mooy mooy ndigal li waxuñ nag te réew nag ku jël jumaa ji waaye ne fa di def ay plateau toog di waxtaan mel ne ko ne ci pénc loolu xam ngeen ne jëkku jaaduwul te la sëñ daa wax naa nit ñi moom loo nongo rek ñu teg la ko kon loolu itam ñàkk a jox ñàkk a xam dara li ci ëpp ba ca desit di ko fàttaliwaat bu baax waxoon naa ko fi daaw jëkk ñu dugg ci biir jumaa ji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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.